يقول في كتابه الكريم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال جر مثقال ذرة شرا يره أحمده هو المالك للحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم وأحسكم على طاعته أما بعد أيها المؤمنون الكرام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا في هذا الحديث الشريف يحذر النبي عليه السلام من عاقبة احتقار الذنب مهما صغر في نظر فاعله لأن احتقار الذنب يؤدي إلى الاستهانة به ومن ثم فعله والإصرار عليه وقد بين النبي عليه السلام أن الذنب الذي يكرره فاعله باعتباره شيئا هينا إن اجتمعت على فاعله يهلك والعياذ بالله فلينظر المسلم إلى نفسه ينظر إلى معاص استهان بها وليعلم أنها إن اجتمعت وأخذ بها أهلكته ما لم يتب إلى الله منها وفي خطبته يذكرنا سيدنا إمام الله عليه الصلاة والسلام بالحقيقة التي لو أخذنا بها في الاعتبار لن نستصغر ذنبا ولا نستهان ولا نستهان به مهما صغر في نظرنا فقال عليه السلام مذكرا إيانا وكاتب العمل وكاتب العمل والقول la yahfalani saatan wala yetrukani chazatan wala fazza janta ñeel na yàlla kii borom bindee fitey borom lépp mu ngiy wax ci téeréem bu tedd bi ne ku def lu tolloog pepp wa gën a tuuti ci wiw gi di nga ko gis ku defit lu tolloog pepp wa gën a tuuti ci lu bon di nga ko gis maangi ngi santete sant te mooy ki ak amul ben nabur bu nu war a jaamu kudul moom yàlla wéete woon a bokk ak kenn sunu sang muhammad ab jaamam la di yonentam sunu borom nu lay ñaan nga dolli teraanga ak xéewal dolli mucc barke ci sab jaam di sab yonente muhammad ak maki ñoñam ak i saxaabaam mboole seet maa ngi leen di dénk yéen jaam yi sama ak ragal mu te di leen ñaax itam ci topp ka ginnaaw loolu yéen way gëm yu tëdd yi wax ji sax na tukkee ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne moytu leen bàkkaar yi nuy xeeb mu ne ndax bàkkaar yooyu nga xam ne moom la nuy xeeb ba tax nu di ko def bu dajaloo ca kaw waaja ko def ñoo koy mujj alak maanaam ñoo koy lakk yàlla nu ci yàlla muccal ci xadis bu tedd bi mbokki yi bi mu ngi artu ci mujjëg bakar bakar bakkaar ba lu mu tuuti tuuti ci bëtëb ka kay def ndax xeeb bakkaar mooy nit ci mu ka solo te bu ko ñàkkalee solo kon def ka da te itam bu ko defee defaat ka ak dëkk ci di kay def da koy yomb ndax la mu tàmbalee moo tax xeeb gam ko xeeb ak ñàkkal solo gam ko ñàkkal solo te moom yonent bi alayhi salaam biral na bi nga xam ne ki koy def mu ngi koy baamtu di ko def di ko defaat ndax ñàkkal solo gim ko ñàkkal solo ak gim def gim ko def mu doon du dara bu dajaloo ca kawam bu dajaloo ca kawam moo koy mujj alak maanaam moo koy mujj lakk yal na nu yàlla muccal ci loolu kon nag jullit bi na xoolaat boppam xool li nga xam ne mu ngi ko dëkkee def ci ay moy yàlla mu xam ne loolu bu dajaloo ci kawam moo koy alak tey rawatina ëllëg yowmal xiyaama bu ca tuubulee te cib xutbam sunu sang imaamullahi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ni ciy fàttali di nu bàyyiloo xel dëgg googu nga xam ne bu nu ko dee bàyyi xel di ko sóoraale kon du nu tuutal benn bakkaar mukk te itam du nu doyadal bakkaar donte la bakkaar ba dafa tuuti ci suñu bët dëgg googu mooy gan mooy ñaari malaakay bindkat yi nga xam ne nu ngi ànd ak ñun saasu ne tey bind lépp loo xamante bi ni luy tukkee ci ñun la ci wax ak jëf moom Seydina Limaamu alayhi salaam mu wax ne ñaari bindkat yi ñaari bindkat jëf yi ak wax yi bàyyi leen leen xel ndax ñoom du ñu sàggan benn saa te duñu bàyyi dara duñu bàyyi benn jëf donte la jëf ju tumuranke lool la wala jëf ju beddku la ba nga defee ne kenn du ko bind nee na loola lépp de dinañ ko bind بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر جواد ta'ala barun الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون إن أي شيء نهى عنه الإسلام فالواجب على المسلم اجتنابه وعدم الاستهانة به قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ولا ينبغي لمسلم أن يستصغر الذنب ولا أن يحتقره فيرتكبه مرة واحدة فضلا عن أن يسر على فعله ومحقرات الذنوب منها ذنوب اللسان في المقام الأول وبالأخص الكذب ومنها ذنوب العين وذنوب الأذن وإن من علامة الاستهانة بالذنب من المسلم أن يداوم على النظر إلى المحرمات حتى أصبح مدمنا لذلك وكذلك المواظبة على الاستماع إلى ما حرم إلا إلى ما حرم استماع من الغيبة وقول الزور فيرتكب بذلك المسلم ذنبا مضاعفا ذنب النظر والاستماع أو الاجتماع إلى الحرام وفي نفس الوقت تشجيع الظلم والحرام وتقويته وعلى كل حال فإن النبي عليه السلام يحذر من محقرات الذنوب قائلا متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه cant جيب cant نيال نيال تبارك وتعالى سنتناك taala غبري غسل ko سيدنا امول bari gu sell gu barke seede wéyete na ngorom bokk ak kenn seede ne Muhammad ab jaamam la dib yonentam yal na ko yàlla yi teraanga ak i xéewal dolli ko mucc ak barke moo ki ñiñam ak i saxaabaam mboole seen ginnaaw loolu yéen soppee jullit yi lépp loo xam ne lislaam tere naka rek li war ci jullit bi mooy mu moytandiku bañ kaa def moytandiku itam di ko ñàkkal solo ak di ko dooya del ci loolu yàlla mu ngi wax naan wa ma nahaakum an ku fantahu mu ne lépp loo xam ne yonent bi tere na leen que bàyyi leen loolu te yellul cib jullit muy tuutal bakkaar wala mu koy xeeb di ko ñàkkal solo ba tax mu koy def benn yoon rek rawatina nag mu dëkk ci di ko def di ko def di ko defaat te bakkaar yooyu ñuy xeeb nag bari na bokk na ca nag te la ca jiitu bakkaari làmmiñ rawatina nag bakkaarab fen fen du bakkaar bu ndaw waa nga xam ne jullit bu ko def benn yoon rek waroon na la indil cas de conscience boo xam ne feex réparé woo ko dootoo am jàmm waxuma nag dëkk ci di ko def ba tàmmaka ba di fen ci loo xam ne sax fen ga nga cay fen boo ko deful woon du la yàqal dara te def nga nga ko def jol dolli dara waaye fof tàmm ay fen rek ndax ñàkkal ko solo ak xeeb ka ba fox ya gisi ya nu si yàlla musal bokk na ca tim bakkaar yi ñuy xeeb bokk na ca surtout bakkaaru bët bakkaar yi nga xam ne bët koy def muy xool lu yàlla tere ñu xool bokk na ca itim bakkaari nopp mooy déglu loo xam ne xaraam na déglu ko te bokk na ci màndarga yi tegtale ne jullit bi sàggan na ba doyadil soofantal li nga xam ne mooy bàkkaar bokk na ca màndarga ya mooy mu dëkk ci di xool loo xam ne diine tere nañu di ko xool mu dëkk ci di ko xool ba foofu ko tàmm ba làggi ca ba nga xam ne suba bu xëyee rek wala bés bu ne rek saa su ne mu ngay delluwaat ci ubbiwaat di xool loola nga xam ne xaraam na ak xool ko loolu màndargak xeeb bakkaar la màndargak doyadil bakkaar la yàlla nu si yàlla musal bokk na ci itam ci màndarga yi doyadil bakkaar ak xeeb ka mooy dëkk ci di déglu loo xam ne diine tere nañu déglu ko rawatina ci lu jëm ci jëwaate ak sosalaate wax wax waxi suur waxi sos te itim mu doon ñaar yoo xam ne maanaam dëkk ci di xool loo xam ne xaraam na xool ko ak dëkk ci di déglu loo xam ne xaraam na déglu ko jullit bi koy def ci jamono ji mu ngi def bakkaar boo xam ne bu ñuy duble la ndax bakkaarab xool ba walla déglu ba am na waaye itam bakkaarab dooleel encouragé ak dooleel loola ngay xool ak di déglu ndax lu nu ko gën di xool ak di ko gën di déglu di ko gën a saxal ak di ko gën a siiwal ba dootu jóg foofa ba tax na kon loolu jullit bu ko def def nga bakkaar bu ñu duble moom it yàlla nu si yàlla musal ala kulli xaal mbokki jullit yi képp koo xam ne yaa ngi xeeb bakkaar xamal ne xeeb nga sa musiba te itim li ci yonent bi alayhi wax doy nag artu mooy nee na loola ngay xeeb bu la ko yàlla jàppee bu la ko yàlla toppee moo lay alak maanaam moo lay lakk yàlla nu yàlla muccal ci bakkaar yàlla nu yàlla dolli muccal ci seytaane yal nu yàlla dolli jàmm ci suñu réew mi yàlla na yàlla dolli jàmm ci réewi jullit yépp yàlla na yàlla wesaare jàmm ci àddina bi yàlla na yàlla fayal na sunuy sang yu baax yi Seydina Mandione Laye ak Seydina Abdoulaye yàlla dolli seeni leer yàlla dolli seen i xéwal dolli seen martaba ak seen maqaama te taas ñu ci seen barke yàlla na nu yàlla dolli jàmm allahuma inna nasaluka mujibaati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salaamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على المال وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم